kon Ilimane Ndiaye gis ngeen ni préparé match bi tey. waaw ban yaakaar fu mu toll nii. xel mu dal rek di am yaakaar xel mu dal ndax Ilimane ku ko xam rek xam ne moom dafa judd rek ñu xooyal ko bal bal jox ko mu naan te wane na ko Croc lii li xam naa rëcc bi ñuy am rek mooy li ko Aliou Cissé yéex jox sansam mais incha allah ñu ngi am yaakaar bu baax a baax di wax daal Sénégal yëpp ne ñëpp ñaan daal yàlla may nu ndam lu sedd guy. parce que xale bi am nañ ci yaakaar ci moom te xam naa ni ñoom ñooy mujjee football bi ëllëg kon nag xale moom xam nga rek li naan football sport xale moo koy def kon na gars yi dolli ñaan rek te incha allah dina baax Elimane nag moom suñu dëkkandoo bu baax la vraiment wax dëgg bu ñëwee fii day oyofal boppam maase gars yi dem ci géej gi xam nga fooree loolu lañ ko xamee quoi di ko ñaanal daf laal yàlla na yàlla defal daal. ku par yow daal yow jàpp nga ni fu mu doon Équateur moom ñoo ko sama xel dal na ci. sama xel dal na si équipe bi ñu yor moom vraiment bu ñu tegee équipe normale comme li amoon korok bu ko tegee yaakaar naa xañu si kaw Équateur li si des daal mooy ñaan rek te ñaan comme du doy nan ñaan rek xam ne dina baax daal incha allah man gëm naa loolu quoi yàlla na yàlla may ndam lu sedd guy daal kontaan nañ ci yéen nag bu baax a baax ci ñëw bi ngeen ñëw nii di leen wax ni soyez bienvenus ñëw ngeen ci koñu Ilimane Ndiaye Cambérène gi yëpp ñu ngi si ginnaaw Ilimane waaw te sa équipe nationale dafa war a am loolu c'est normal ndax Gaynde Njaay comme Iliman Njaay ma fa nekk te moom mooy imam bi foofu waaye yàlla na ko yàlla defal jàmm waaye. affaire bi Abdou Diallo la mooy ñi sant Diallo xam nga ku sant Diallo moom Gaynde Njaay ngay doon. gis nañu partant la fu mu tey ci match bi contre Équateur mu nekk match boo xam ne match bi décisif la pour le Sénégal. Mhm. Euh, tey yéen fu mu doon loo leen di xaar ak loo leen yëg fu mu toll. waaw dañuy sant yàlla rek. di jël ci yonent bi sallallahu alayhi di sant mboolem population Sénégal bi di wax ni maanaam boo gisee sénégalais yi di proposer Iliman dañoo xam li mu mën rek xam ni mën na football te li équipe bi soxla moom la mën kon wax dëgg yàlla bu fekkee bu ñu yégee ni instant ni parte na dañ ciy kontaan loolu ndax ñun Sénégal rek moo ñu ñor di leen ñaanal nag lii nga xamante ni ci lañ nekk muy coupe du monde bi di leen ñaanal yàlla def bañ indi fii coupe bi am nañ si yaakaar ndax Sénégal wax dëgg yàlla mérité na jël coupe di monde ndax am nañ joueurs yu baax a baax. kon lu des mooy yenn faay yi nañ koy régler rek tamit bàyyeeku bi tamit maa ngi koy ñaax waa Sénégal bu ñu mënee woon cent zéro sax buñ bàyyeeku nañuy gën a dal ci kaw gaay rek incha allah yàlla defal ñu ndam incha allah. ma tax ak sama beneen copain copain tey looy xaar ci match bi noo gisee match bi kon Équateur du yomb. waaw du yomb moom moo ko jiite la jóge ba piir ñëw seet si sama tons yi ñoom Guèye ñu jàkkaarlook Ilimane Ndiaye. loolu moo nu boole ci match bi match bi passé fi leen ko seetaane woon mu neex lool mu jig nu moo tax ñu bëgg a dàbbaliwaat jóge ba Pire ñëw bëgg a seetaan si waat match ndax dëkkandoo dafa foor te comme dafa jàkkaarloo samay toos mel na ni ñun ñëw bokk lépp léegi te Iliman Ndiaye eh, miinuñu ko sax mais bàjjanam bii nga xam moom lañ jàkkaarloo ku baax la wax dëgg yàlla waaw démb nag dama amoon benn xew ñëw fi mais noonu lan ma terale di samay ndijaay même bàjjanam teral ma may ma xaalis bu bari kon dañ doon def lu jàppale sëtam bi bu baax a baax li mu bëgg moom moo ko ci xam saa borom jàppale ko ci yàlla may nu ndam lu sedd guy boo Iliman nag niñ ko gisee mu ngi bu buñ ko joxee sansam mel na ni dinañ jig bu baax a baax a baax ndax bëgg na dëkk bi bëgg na Sénégal kon yàlla na ko yàlla jàppale li mu bëgg moo xam ba fay moromam egg mu egg fa donc Aliou Cissé ñu ngi koy sant moom itam bu baax a baax moom mi ko convoqué ndax joueurs yi bari nañ fi trop te Sénégal ku ne xam na ni ñu man a fubal te jëluñu leen ñoo ëpp ñin jël chaque année day am ñuy feeñ kon ku ñëw rek yàlla na jik ñu dem a dem ba nga xam te ni équipe bi ci bëgg dinañ ko am muy jël coupe du monde te lu mën a nekk la. parce que yaakaar naa coupe d'Afrique bi ñu koy jël kenn ko woon demoon nañ ba découragé wu perte finale perte demi perte ñaari finale waaw jeex na ak début kaam ni ni mu sonne woon mais ni ñu sonne woon début mujj na neex bii début bi miti na ndax jël nañ defet yàlla na comme noonu Papin gis nañu fi mu toll nii liste bi génn na Elimane Ndiaye nekk na partant lii ñëpp moom lañ doon xaar. waaw loolu de moom moom lañ doon xaar quoi waaw ñu ngi ci santaat yàlla di encourager waat Alioune Cissé di ko wax ne li Sénégalais yi bëggoon daal defal na leen ko. waaw ñu fekk la fii ci kër gi loo bokk ak moom. Elimane Ndiaye moom sama booy la sama frère la ñu yàgg fii Cambérène xam nga mu taxoon ma koñ bi fii moom koo wax naan mboobu Elimane Ndiaye waaw sama nit la daal. du ngeen tooy gis ni Sénégal gi yëpp yàkkamti mu dugg lan la leen def. waaw Sénégal bi yëpp yàkkamti mu dugg maanaam sénégalais yi dañoo dem ba xam kii mooy kan parce que euh, léegi football ñëpp ko xam quoi ku nekk da ngay jël sa téléphone di dugg si internet bi di xool ñu xool xam ne kii nii lu Sénégal soxla mu ngi ci moom moo tax sénégalais yàkkamti woon pour Aliou Cissé dugal ko rek mais du leneen. Mhm. yàlla may ndam. waaw amin ñu bokk ñun ñëpp xam ñu feetee ko. waaw dem ba indi coupe bi si barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allez les lions comme ni nga gisee sama gars yi maay ba léegi biir Cambérène xam nga tey moom Cambérène warul yomb ndax waa Cambérène ñoom dañuy xaar seen doom fu mu toll am benn temps de ngi waajal. ñu ngi waajal moom. <laughs> dafa la fu mu toll nii quoi. waa lii romb na lii romb na final quoi parce que peuple bi moo soxla quoi parce que peuple bi moo soxla te li ci laxasu dafa bari quoi moo tax. sax dépasse même cadre football waaw économiquement da nga koy kon donc lii pour man dépassé na sax final quoi waaw c'est la nation ki a besoin quoi. ñu gis euh, ñëpp di réclamer Iliman Ndiaye doomu Cambérène tey bi ngeen toogee gis ñëpp partout loo leen sentir yéen surtout yéen yéen ay doomu Cambérène. waaw mais d'abord dañuy dañuy dañuy dañuy sant yàlla quoi dañuy sant yàlla quoi bu ñu amee tey ndax ku nekk rêve woon nga tey am sa localité benn jour boo xamante ni tey dina dina dina dina représenter ce secteur kon donc bu ñu demee ba am Ilimane euh, Ndiaye dañuy dañuy dañuy sant yàlla quoi waaw dañuy sant yàlla di ñaan yàlla nag mu may ñu ndam ci match bi quoi sincèrement parler waaw que Ilimane Ndiaye xam nga fasse bon match quoi waaw. tey ban ban conseil nga jox Aliou Cissé ci tactique de jeu ñu mu war a dugal premier mi-temps. waaw man est-ce que Aliou Cissé man war naa ko mën a jox conseil parce que. Sénégal 17 millions d'habitants 17 de coach. waaw mais moom domaine am la. xam naa ne moom moo ñu ëpp maîtrise ci côté boobu te li mu bëgg loolu la population bi bëgg c'est que bon fii ñun ñëpp euh, dañuy wax ak suñu volonté suñu envier xam nga te ñun bëgguñu defet quoi équipe bi des fois yëg-yëg yi mooy tax ku si nekk da ngay bëgg xam nga rek pronostiquer mais Aliou Cissé tey boo xoolee ñi mu choisir tey ce sont les meilleurs presque dans leur club kon donc tey moom mu daanaka moo ñu gën a soxla ndam li waaw moom nag ni mu def ba jël coupe d'Afrique bi je crois que ni am na système am boo xamante war na ko mën a mettre en place pour que ñu mën a remporter tey coupe du monde bi pourquoi pas. waaw incha allah abu rabi. jaajëf copain yàlla nañu yàlla nañu féete tey ci guddi. amiin amiin amiin amiin loolu la ñuy ñaana ah. ñu jaar la ci huitième de finale yi quoi sincèrement par loolu la ñuy ñaan tey yàlla nañu ko yàlla may ñu am ndam lu sedd quoi ñëpp ci seen bopp.